fitna gi ñuy teg ci xale yi ak muskala fii bari na ay melokaan fii ci Sénégal yenn ci melokaan yooyee yee nga koy mën a gis ci mbedd mi waaye mu am ci yoo xam ne doo ko mën a gis ndax nag dafa làqu ci biir famille yi ci centre de redressement yi ak garderie yi nga xam ne fa la ñuy yoree xale yi waaye lu ni mel seetu la ci nekkin yu metti yi nga xam ne xale yi ci lañu nekk ndax fitna gi ñu leen di teg dem na ba doon jënd ak njaay bu am koppar waaye nu ko commerce ay junniy junni xale la ñuy sànni ay téeméeri téeméer wala sax ay junniy junni ci mbedd bi ñuy yalwaan suba ba ngoon jot ku leen mënti romb moo xam ci oto wala sax ngay dox foo sànni sa gët ci ndakaaru rekk gis leen ñàkk gu tar nga xam ne dafa fës bokk na ci xar kanam buy fësal fitna gi nga xam ne ñu ngi koy teg ci xale yi ak muskalaf yi ñenn ñi dañu leen di yóbbu ci ay kër yu yàqu ñenn ñi ci ay abri provisoire nga xam ne amul benn kaaraange amuñu ndox amuñu courant yooyu la xale dañuy mujjee rekk doon ay yalwaankat dootuñu nelaw ba yàndoor ndax suba ba jant bi soow fitna la ñuy dund ci seen yaram waaye tamit ci seen xel mbirum sant de redressement yi nag dafay wane bu baax a baax ne xale yi kenn toppatoowu leen walla sax mag ñi ndax nag liñ leen di teg kenn nawloowu ko ay fan a ngi nii nag mbirum crèche yi nekk na lu ñuy waxtaanee ñi nga xam ne ñooy tuuti tànk yi ak ñuy door a juddu ñoom itam métit yooyee dañu leen koy teg ndax ay situation yu metti la ñuy dund ci wàllu lu ñuy lekk walla bu ñu bëggee faju wala sax ci seen nekkin ak ak yellefu xale yooyee nga xam ne dañoo war a jàng war a am wér gu yaram am dund gu sell waaye tamit fexe ba seen famille am ci ñoom mbëggeel loole amu ca te nag yenn waajur yi seeni loxo génnu ca état de droit nag dafa am wareefu dal di aar xale yi waaye itam fexe ba ñu am ay conditions yu gën yoo xam ne da leen di may ñu mën a jotandi ci seen àq ak ci seen yelleef. société bi nag ñoom tàmm nañu dañuy xool te duñu ci wax wala ñu ut ci saafara moo xam fitna yi ñuy teg ci xale yi wala sax beddi gi ñu beddi jeunesse bi moo tax bu nag kenn bu mu fi nekk di waaru ci xale yi bu ñu génnee ci mbedd bi di yëkkati ay fitna ñoom itam di ko teg ci société bi ndax nag ñoom it sàkkuwu juddu waxuma laak nag mag yi nga xam ne ñoo leen waroon yërëm aar leen di leen teg yenn fitna yi am ca ñoo xam ne ñoom dañ leen di gëm loolu amul di woowee seen bopp ay redresseur ñoom ñoo ñee xaalis rek moo leen yitteel ak it bëgg kilifteef xale yooyee nag sàkkuwuñu ci société bi lu dul rek ñu bàyyi leen ñu dund seen jeunesse su ko defee suba ñoom itam ñu amal njëriñ seen réew lii kese la lii dong lii kepp